yi di rafetlu on bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot nañu ak see yéen ci xibaaru digg bëccëg gi la ca gën a fës tey lay jàkkaarloo ko nag procureur Ibrahima Anne jege ñaale imaam ndaw boobee foofee ca Kaolack ñu tegoon ko loxo moom nag yu bés bële ñu génn dana indi ay leeral ci tuuma ñu teg ci kawam lu jëm ci attentat ya ca Paris benn minute ñëpp ni teg loolee kon amal nañu ko fépp foo xamante ni rek ci àdduna bi seeni ndaw ña fa waaye it ñoo xamante ni kon mbir mi soxal na leen téeméer ak ñaar fukki nit ak juróom-ñeent ñàkkagul ci seen bakkan lopp ñetti téeméer ak juróom fukkaam ci gaañu gaañu fii ci ambassade bu France danañu fa doxantu xool kon ban disposition la ñu fa euh, nekkee ñoom ñooñee gannaaw la nga xamante ni xew na 4G bi appel d'offre bi xëy nañu kon lancé ko ARTP ni soxal na lu toll ci ñetti opérateur euh, ñaari weer la ñu leen may ngir ñu wax lu ñu mëne waajtaay match Sénégal tàggat yaram digganteem ak Madagascar loolee kon euh, ñi ngi ci gaynde yi euh, taxaw euh, temm ngir jëlee ndam ci seen jàkkaarloo bi fii ci Ndakaaru gannaaw match ni lu ba ñu def fële kon ca Tana dossier bi ci njaxtalu xibaar yi dinañu dellu si kon ci kàddu njiitu réew mi bëgg xoolaat nu ñu mën a yeesale secteur informel bi loolee ñu jàpp ni lu mën a nekk la waaye dafa am ay conditions yoo xam ni faw ñu matale ko ngir mën a àgg ci boobee situation ponk yangook ni suur kon ñu yaatal ko ne lu rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias jege ñaale la lañu wax ci kon imaam Alioune ndaw bu euh, Kaolack imaam an lay wuyu ay bés bële kon euh, lañu ko teg loxo moom it fajar gannaaw ba muy euh, julli ji ñu ni daal dafa jege imaam Alioune Ndao moomee ñuy toppee xiirtal nit ñi ci lu jëm ci wàllu kon terrorisme moom gannaaw ba ñu ko jàppee mu nekkoon kon ca section recherche gendarmerie Colobane tey jii dana jàkkaarloo kon ak euh, procureur euh, parquet kon euh, dañu ko defeere tey jii ngir mu indi ay leeral ci loolee nga xamante ni kon moom la ñu koy toppee lam ca jote wax nag nee na taqewul wul ak mbiri terrorisme la waral moo jege kon Imam Alioune ndaw moo di yaakaar gu mu yaakaar ni war na ko gën a mën a xamle ak diineem loole lépp dina ci indi ay leeral kon ngonu ko tey ci kanamu juge bi attentat ya ca kon Paris mu leer ni foofe wàllu terrorisme la téeméer ak ñaar fukki nit ak ñeent faatu ca lu ëpp ñetti téeméer ak juróom fukk eh, jële ci ay eh, gaañu gaañu eh, fii ci ndakaaru nag ak it ca France waaye it ci gox yu bari ci àdduna bi minute de silence def nañu ko jagleel ko ñu dëdd waaye it ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci métit gannaaw yooyee attentat ambassade de France xëy nañu foo xool situation bi nga xam ne benn dispositif bu wuuteeg la fa daan am wala kon nu ñu dundee mbir mi suñu ndaw ma nga fa Maymuna Njaay lay wuyoo Maymuna maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ngoné. mais mun a foofee ci ambassade France naka la ñu xëyee tey jii gannaaw 10 heures ca Paris. Euh, nañu xëyee eh, wax nga ko une gannaaw une minute silence bi nga xam ne euh, jotoon nañ ko nemmeek ci nemmeeku tey ci suba loolu lañ ñu xamal gannaaw si lool nag euh, dem beeg dikk bi jaabante bi nit ñaa ngi jaabante di toppatoo seen i kayit oto yi ñu ngi leen di xool bu baax lu romb daal dañuy xool maal yi tey bu baax ay minutes yu bëri dinañ ko fa def ñuy xool. nit ñi sax euh, làmbatu bi dañ leen di làmb làmb ba xool euh, lan la ñu yoree lan lañu ñu sécurité bi daal bu ñuy wax daal euh, renforcé nañ ko bu baax fii ci ambassade bu France liñ ñu xamal nag ñoom nag ci ñu ci bëri ñu ñu dajeel nekk ay français nekk fii ci Sénégal ña ngay toppatoo ay jamono ji pour dem rek ci ay fan yu néew xooli seen njaboot nañu nekkee foofu parce que nee nañ sax ñoom li ñu tànti fi mu toll nii Sénégal moo ëpp kaaraange fi mu toll nii fii lañ gën a nekkee ci jàmm waaye waaye nag loolu terewul dinañu dem xooli seen njaboot ci lan la ñu nekkee ndax affaire yi daal la xew jafari nee nañ xamuñu lan moo ko war a mën a indi euh, doxuñ ko seentu nee nañ lii daal acte barbare la kenn xamul daal euh, lii fan lay jëm Maimouna Ndiaye euh, ñu koy euh, gërëm doomi France yooyu nekk kon euh, fii ci Sénégal am na ñeneen ñu àddu ñoom it xam le ni futis yam ñu ngi koy dund waxtu yi waaye it ñàkk xam lu jur bi situation ci centre culturel français foofee nag dara yëngu fa ñu ngi cib dëcc la ñu xamle métit ñu koy dund waxtu yi reportage Aminata Mare Sow Bernadette ab doomu France la moom mu ngi dund ci Sénégal mat na léegi juróom benni at soxna si nag bokk na ci ñi nga xam ne dañu ñàkk ay nit ci attentat yi am fële ci France ci guddi àjjuma. j'ai une amie dont la fille a perdu euh, sa copine au Bataclan. man mi di wax ak yéen sama benn xarit moom boroom këram ci attentat yooyu lee faatu ñeneen ñi nee nañ moo am nañu ay blessures yu métti. parce que ça ne mérite pas qu'on comprenne c'est voilà ça va au-delà de de la compréhension. ni moom Pierrette Beda di beneen doomu français bu dund fii ci Sénégal. soxna si di wane xar gi mu am yëre yi mu sol nag di wane ni fi mu toll ni ci dëy la nekk lii moom la noo xàmme pay mooy Tour Eiffel dama ko sol boole kak yëre gu ñuul ngir wane man euh, doomu France la te si tiis laa nekk ci bërëb yu bare yoo xam ni ay doomu France ñoo fay faral di nekk gis nañ ne liggéeyuñu ñoom ñu jàpp ne ñi amal jëf ju ñaaw jooju le ci seen dëkk xamuñu lu tax ñu amal ko. depuis vendredi soir. Euh... bon personne euh, quasiment ne dort on est tous de vendredi ba léegi sama xel dalul ci tiis la nekk ñu ngi woote téléphone ngir am nouvelle ci mbokk yi des foofee ci France mbir mi moom dañu jaaxal lool daa jéggi dayoo. d'avoir nouvelles de savoir s'ils étaient bien rentrés bon heureusement il n'y a pas eu de, de problème mais voilà tout le monde était dans l'attente et dans l'inquiétude dans l'incompréhension ces actes de barbarie attentat yi ñaaw la naka la ay nit di jógee dugg ci ab salle am benn yéene mooy faat ñi fa nekk ñëpp la ñëpp xam nañ ne salle de spectacle bu ràññeeku la Youssou Ndour ñi sax jot na faa def ay spectacle terroristes yi dañu bëgg tiital waaye. c'est idéaliste de dire on vient lu ëpp téeméer ak ñaari fukki nit faatu ñeneen ñu bëri am ci ay gaañu gaañu terroristes yi daal di dugg ci Paris daal di fay def ñaawteef. waaye bu ñu sukkandikoo ci doomu France bi lee loolee du tee ñu wéyal li ñu bëgg a def ci biir France. Euh, les terroristes veulent nous terroriser mais nous on résistera. on continuera à aller dans les bars, on continuera à aller au cinéma, on continuera à aller au théâtre, on continuera à avoir une vie euh, euh, faite sur la liberté. Et ce ne sont pas des gens comme ça qui vont nous dicter ce que l'on doit faire. jàngu bi fii ci euh, Sénégal ñoom nag bokk nañu tiis wi ak France it njabootoog ñi nga xamante ni ñoom ñoo loru jëlee ci ay gaañu gaañu curé bu église Saint-André bu euh, Mbour xam le ni kilifa it jot nañu xoolaat seen doxalina politique yi ñuy tekk ndax jàpp na ni bokk na ci li jur bi situation Jean-Marie Ndour ci micro Cheikh Tidiane Dione. oui Mais est-ce que cela aussi ne, ne, ne, traduit pas, ne reflète pas euh, donc un, un courant Euh, gis naa ne actualité boobu mu jamono ji moom mooy lëmbee àdduna wërngal këpp euh, ñun nag ñu ngi koy naqarlu lool waaye liñ ci gis moom mooy benn phénomène la boo xam ne dafa xew jamono ji waaye ñun liñ ci sàkku ñun moom mooy daal la ñii di dirigeants yi foog ñu toog interroger wu ci lu bari ci yenn politique lañu ñu teg au niveau national ak au niveau international ak tamit soppi doxalin man li ma ci mën a wax moom mooy ku nekk soo jàppee sa morom ni nga jàppee sa bopp rek foog naa ne àdduna dina dox man yaakaar na jamono ji lii ca Paris la amee te njort naa nañ jël ba lii di kaaraange bu mat sëkk daal di fay am waaye nag xamuñu ndax dina law ba feneen te ñun daal li ñuy sàkku moom mooy nit ñi xoolaat jikko yi defaraat seen jikko ak seen xalaat su ko defee gën a yaatal xol yi foog naa ne àdduna bi dina dox li mu waree. donc il faut une interrogation plus globale mais il faut surtout une conversion des cœurs. fa yëf yi xewee foofee ci boppam la ñuy daal di dem fële ca Paris Ibrahima Camara ma nga ñu fa Ibrahima ma nga fa gannaaw bañu la nuyoo yenn xibaar yu mujj eh, lañu ñu mën a jàpp gannaaw attentat boobu ak ni mel ni sax am eh, information ci ñi nga ni njort nañ ni ñoom ñoo def yooyee ñaawteef. Euh, wax nga ko Ngoné euh, donc euh, enquête baa ngi wéy ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef boobee daf mel ni. Euh, enquêteurs yi jot na leen xam ñoom ñëpp euh, fi mu ne nii nag siiwal nañu ay tur yu bare bare li ci gën a fës nag mooy euh, nañu ko njotee woon ay nit la yoo xam ne ay doomi France la ñu lu ci ëpp waaye nag ay doom France xam ne ay euh, doomi émigré la ñu seen i waajur dañu ñëw daan soon fi seen tool rek ñu juddoo fi màggee fii ba léegi nag enquête bee ngi woy diggante euh, Paris ak Bruxelles muy Belgique ndaxte juróom-ñaari nit teg nañ leen loxo foofee ci euh, Belgique waaye François Hollande ci bam mu ngi daje ak parlement bi jamono ji di waxtaan ak ñoom xool yan matuwaay la ñu war a jël ñal wàllu attentat yooyu fi mu ne ni nag fi ñuy àddoo ak yéen ñu ngi ci place de la République mbooloo mu takko takku moo fi dajee ngoone di rendre hommage ñi nga xam ni ñoo jot a faatu ci attentat yu métti yooyu ñu ñu teg ay sondeel ak ay bouquet de fleur ngir jëm ñi nga xam ni ñoo génn àddina euh, police bi ak gendarmerie ak militaire yi euh, euh, sécurité bu takko takku moo nekk yi ci jamono ji ngir aar kaarange ñi nga xam ne ñooy parisiens yi ba léegi nag ñu ngi topp mbir mi ngir xam ndax am na ay sénégalais jokkoon nañu ak consul bu Sénégal bu nekk fii ci Paris euh, waaye euh, wax nañu ni euh, ba léegi xamagul ndax am na ay sénégalais yu ci bokk am déet waaye bu ci amee lu leer dinañ dinañ ko àggee ñu ngi topp mbir mi nag ngoone ba xam fu muy mujjee jamono ji fii ci place de la République bu Paris ngoone Ngom. takk der yi ñu ngi taxaw nu am solo ndax bari na ay perquisition ñoo xamante ni it mayetuñu leen ñu génn seen kër ndax euh, l'enquête bi loole lépp kon euh, gannaaw la nga xamante ni moom moo di attentat yooyu effectivement euh, bëri na ay euh, perquisition lu ëpp ay euh, cent cinquante perquisition def nañ ko am na ñu ñuy teg jot a teg loxo yemul ci Paris nag ndax ci France yëpp lañ ko lancé dëkk bu mel ni Lyon am na ay perquisition yu ñu fa def am na ay ngànnaay yu ñu jot a teg loxo ak ay nit yu ñu jot jàpp yi tamit jamono ji ci biir lu nag ministre de l' waxoon na ko nee na dinañ wéyal perquisition yi euh, di xool fépp foo xam ni njot nañu ni war na am ay nit yoo xam ni ñu ngi ci tànk yooyu ñu euh, teg leen loxo dakkal euh, mbir mi. waaye beneen mbir bi ci am tamit ngoone mooy ni France toogul ndaxte démb si guddi jot nañoo bombardé ay position ci Syrie ba tax na. Euh, population bi nekk ci ñoom tamit mbir moomu euh, am nañu ko rafetlu am nañu ko ñaawlu ndaxte nee nañu loolu day gën leen di gën a exposé ndax ñoom euh, fii ak France mu ngi bombardé Syrie am na ay risques ñi nga xam ne ñooy terroristes yi tamit di def ay attaques terroristes fii ci Paris mbaa yeneen bërëb ci France wala sax fu français mën ci nekk ci àddina bi. gërëm la Ibrahima Camara foofee ca Paris kon mu ñu doon indi lay leeral ci kon eh, xibaar yi mujj gannaaw attentat boobu wax na ko France moom xam le ni eh, ndem dal nañu ci kawam du sedd ci ñi jëf jëf ju ni mel te nag cong gu mat sëkk dana ko amal ba tax na noonee mu ci indi ay leeral tàmbali nañu dal ci kaw Syrie ak eh, yenn ci ay bombardement bu ñu dellusee ci réew mi dañuy àddu ci campagne kon mbayu njaayum gerte gi njënd ak njaay mi tàmbali na ci altine tey jii fukki fan ak benn ci juróom-benn ci weeru novembre loolee euh, gannaaw kon li nga xamante ni noonu la ko gouvernement bi euh, dogalee ba defoon ci kon ab conseil interministériel euh, njëg li nag ñu daal di koy fixé ci lu toll ci ñeent fukki dërëm li moom la ci ca kanam lay leer 4G bi ñu jàpp ni ARTP it xëy na tey ji ci suba lancé appel à candidature bi ñetti opérateur nee moom la mbir mi soxal am nañu nag lu toll daal ci. ci eh, diirub eh, ñaari weer ngir ku nekk eh, def sa proposition ñu xëyee ci am ndaje ñu fekk ji fa suñu ndaw moom it Alassane Ba lay nuyu Alassane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ngoné. Alassane kon 4G bi woon na fi coow ñu ngi koy xaar bu baax a baax te ji nag lancé nañu appel à candidature bi ndaje ma RTB bi lu mu feeñal la. dëgg la ngoone noonu la licence 4G bi ginaaw bi nga xamante ni euh, ci atum 2014 defoon nañu phase test yi léegi lancé nañu lii di processus d' attribution euh, ñetti opérateur kese nag la soxal euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ci réew bi li ko dalee nag fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre bii ñu nekk maanaam tey mun nañu dem ci ARTP retirer dossier d' ak à candidature bi. nga xam ne ñaari weer lañ lay may maanaam fii ba 18 janvier 2016 bi ñu dëgmal ngir ñu ñëwaat déposé seen dossier candidature bu ñu sukkandikoo nag ci Abdou sal Sall nga xam ne mooy directeur général ba ARTP nee na ñeenteelu génération bi muy 4 bokk na ci li nga xamante ni dina booster suñu économie maanaam dina yëkkati suñu dina yëkkati suñu koom ci wàllu euh, numérique euh, consommateur sénégalais bi lépp li nga xamante ni dina ko mënoon na ko def ci ADSL ci këram ak 4G bi déplacement yi mooy amal dina ko mën a def euh, processus yi nag ci atum 2014 li ñu ko waxee boobu la ñu defoon test yi am na ay objectifs nag yi nga xamante ni nañ ko opérateurs yi mooy couvrir soixante cinq pour cent population bi fii ak juróomi at maanaam téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróom ci askan wi ak li nga xamante ni juróom benn fukk juróom ñett fukk ak juróom ci téeméer boo jël ci askan wi fii ak fukki at wante tamit lépp li nga xamante ni mooy principe axes routiers yi fii ak fukki at ñu jëm ko couvrir ak li nga xamante ni tamit mooy capital régional yi fii ak juróomi at ñu jëm ko couvrir ci tënk rek ngoone lii mooy li nga xamante ni mën nañ ko jàpp ci euh, ARTP euh, ak processus d'attribution licence 4G bi Alassane est-ce que indi nañu ay leeral ñoom waa RTP ci koppar nga xamante ni moom nga la ñu yittewoo ngir nga mën a jot ci 4G boobu ak it euh, yenn mesures yu ñu teg pour euh, transparence moo fi juróon coow li loolee dara bañ faa ñëw waaw ñoom nee ñu nee nañu euh, enchère la mu di gulet ñu koy amal maanaam ci enchère lañ koy teg képp ki nga xamante ni opérateur nga rek mën nga ñëw Euh, déposé euh, mbir mi ci transparence moo waral ñoom ñu ñu fas ñu def ko mu doon ci euh, enchère enchère lañ koy amalee maanaam nekkut nekkut li nga xamante ni ñoom dañ koy tànn wala leneen déedéet waaye opérateurs yi ñoom ci seen bopp ñoom ñooy ñoom ñooy dem xool ndax lii ñoom dal na seen xel ñu ñëw jël ko déposé ko ci ñaari ñaari weer yi ñu leen yi ñu leen appal gërëm la Alassane Ba en cher nag mooy euh, ñoom opérateur yi ku ne yaay xool daal lam la jaral nga def sa proposition tënk ci sa enveloppe joxe sa morom def ñu xool euh, daal euh, fan la njëg li gën a dune taafum ci gën a gisee kon bopp maddu ci wàllu politique ak génnu Modou Diagne Fada ci biir parti démocratique sénégalais libéraux yu Louga ñoom ñoo ci doon joxe seen xalaat ne nañ d'accord nañu ca dëgg maître Abdoulaye wadd ak kon ña nekk ca ginnaawam loolee lu ñu dogal la ñu bëgg kon ñu jëfee ko Thierno Fall. moo jël décision comité directeur ne moo Diagne Fada Ablaye bi nga xam ne moo yëkkati woon euh, ndombo tànk président groupe parlementaire jox ko ko ak parité bi nga xam Ablaye moo ko fi tegoon jëlaat loolu ne da koy jox Adda Mboy moo jaañ Fada ne loolu du fi am par discipline de parti bi génnee ko dàq ko ñun fédération Louga bi nu waxtaanee noonu lañ ko dàqee ak ku ànd ak moom donc ça veut dire ñun Louga toute tendance confondue ñu ngi si gannaaw maître Ablaye tey suba ak gannaaw di leen wax que ni Modou Fada di wax que ni Modou Diagne Fada waar wi mu yoroon biir tool bi nee ko nan ko ni na wuti weneen waar tool bi waar tool bi dañ koy bàyyal seen bopp gannaaw gannaaw bi mu neexee gannaaw bi mu neexee lan doon nangul Ablaye Wade bu naqaree dañ koo war a nangul mu di Wade jiite UJTL foofee ca Louga doon jokkoo ak Thierno Fall ma ñu fa toogal Linguère bu ñu fa àggee foofee dañu fay wax wàllug càmm ndax am naa ab lël euh, bu ñu ca def ngir xool nu ñu mën a daal gën a suqalee euh, lii di euh, secteur ba waaye it bi nga xamante ni ko jur gi moom da koy daal di def crime loole nee nañ ñoom sàmmkat yi nañu ko doxal Modou mbay kuréel yi boole seen bopp te yëngu ci wàllu développement ñu gën leen xam ci turu EGAP amaloon nañ benn lël ngir xool jafe-jafe yi sàmm siy dundee solok ndaje gi nag mooy émergence su jur gi ak i tamit fexe ba gën a ñoŋal lii di nu sàmm yi. état bii day def ay programme mais toujours càmm gi da siy xaw a sooxee de siy xaw a desee ginnaaw bi yoon nag ba ñu initier le plan Sénégal émergent ñu ne ñun de war nañ góorlu boo càmm gi tamit mu bokk ci émergence boobu. ñëwoon teewal fa jëwriñ jii di Aminata Mbengue Ndiaye ki di directeur de l' élevage bi mooy rafetlu ndaje bi te mi ngi xamle ne ministère am ubbil na buntam bépp kuréelug sàmm. disponible bi en tant que technicien autorité politique yi taxaw nañu ñun suñu waar nga daan ko def ministère élevage daan ko def te wóor na ma ni képp koo xam ni ci biir service état nga def li nga war a def donc daal foofu na leen di woo ci liggéey boobu ñu ànd liggéey ko ba ëllëg suñuy natt li ma leen wax mooy suñuy natt ñu ne la Sénégal émergent élevage bi man kenn du ci raw. député Alioune Sow tamit di sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mu appliqué daani ñu teg ci sàccum jur gi. mais nag sàcc yi dañ fi am doole. loolu tamit dañuy ñaan autorité yi muy président de la république muy ministre de la justice c'est-à-dire que loi boobu ñu wotee assemblée nationale ñu euh, promulguer ko aussi ñu appliquer ci ci base bi c'est-à-dire que nit ñi jàpp ñetti pàcc lañ fi doon waxtaanee sàmm guddi gu doomu gi jafe-jafe nawet bu bon bi ak it nu ñuy fexe ba dëgëralee xalaat ak jumtuwaay yu ñu war a boole ngir ci àmm gi. ñi moom suqali seen gox la ñu bëgg loola jur ndaje conseil départemental bu Bignona ñu tëral ci nag ab palang ban yoon la ñuy jaar ba àgg ci émergence fii ak fukki yi ci suñu kanam loolee am ci teewaayu préfet ba foofu Boubacar Dia si ci leeral la. département bu Bignona bi nekk département bi gën a rëy ci diwaan bu Ziguinchor moo ngi jëm a tegu ci yoonu soqeeku ndaxte. conseil départemental bi dafa daal di amal ab plan bi mu jàpp ni fileeg fukki at man naa jëlee département bi ci ay jafe-jafe yu mu nekk na ci wàllu koom-koom. c'est un plan moo xamante ne pour ñun génération bi mais pour xale yi war a ñëw euh, pour ñëpp la euh, département bi ñu na moo gën a yaatu 19 communes donc il faut nga dem si commune yëpp waxtaan ak population bi waxtaan ak maire yi ak élus yi en personne ressource bu mun a xam réellement. Euh, ñoom lan lañ soxla lan moo seen yitteel donc c'est pourquoi il nous faut des de planification ñu xam fan la ñu mën a def université fan la ñu mën a def hôpital fan la ñu mën a def yeneen maternité yeneen jumtukaay loolu c'est pourquoi ce plan. plan bii ñu yàgg préparé te département bu réewum France bu ñu duppee Savoie dugal ci loxoom nekk na am plan bu mujj ayib suñu sukkandikoo ci kaddu préfet bu naa mu ngi doon ki fa toggal nguur gi. état bi du ci du ci du ci du ci féete gannaaw comme que ñun yàlla dogal na préfet département mu représente l' état au niveau du conseil départemental. plan bi am na solo ndaxte gis nañ ne plan bi bi ñu rek toog ci ay bureau defar plan bi dañoo dugg ci dëkk dëkkaan yi. tase ak maire yi organiser ay rencontre avec toutes les populations population ne lii lañ bëgg ñu defar léegi nag defar nañ ko xam nañu defar bi rafet na baax na sell na li ci am solo nag mooy wax naa ko ci tubaab dama koy répété bi li ci am solo mooy exécution bi ku ci nekk yaay ciy def vraiment sa sa loxo. conseil départemental bu naa dafa daal di profité ci bis bu muy siiwal plan bi jox ban public yi ay retraités yu département bu Bignona waaye fàttewu ci ay doomu aadama yi nga xamante nii seen dem ak dikk doon na lu jafe. Petersen doxantu nañu fa ayu bés gannaaw ba ñu leen yëkkatee ngir xool nag euh, situation bi foofee euh, néew na kon marchand yu fay doxantu waaye daal euh, lépp loo xamante ni ñu nga koy jëfee mel na ni ña nga leen di surveiller feneen foo xamante ni yàgg nañ fa it avenue Cheikh Ahmadou Bamba fële ca marché HLM situation bi ak Mame Birame Diouf caméra Diafara Ba lii mu ngi xew ci diggante marchand ambulant Babacar bëggul benn yoon naataangoo mi teg ci kaw tali bi ndax loolee jaaduwul. njaboot gi dafay yaatu te ñëpp ku ci nekk sa yar nga indi toogee moo tax faaw ñun ñu nekk ci marché bi ak maire ñu seet nuñ trouver solution waxtaan defar ñun loolu rek moo ñu tax a jóg waaye du dara. naataangoom bi jàpp ni moom njaayam da ko war a amal ci kaw tali bi li nag amul lenn lu ci mën a yëyaab bi mu fas yéene noppi. donte sax ci bërëb bi dañ leen fee jëlee woon ndax seen liggéey war waruñ ko fi amal jaaykat bi di ñuy nettali. saa yu ñu xëyee nañ liggéey ku nekk fa nga nekkoon di nga ko toog liggéey di xaar li sa àq rek ñu jox la ko. beneen bërëb di seen fii marchand ambulant yi ñu jëlee leen fii yàggul sax semaine gi ñu génn. waaw depuis ce matin ba léegi ñu ngi ñuy dàq ah ñàkk moo ñu fi bàyyi quoi mais nag yàlla baax na daal. mais risque nga ñoo nii. waaw instant bu ñu ñëwee ñoom quoi. mais tiitoo ñu nangu bagage non dinañ ko jël mais après dañuy dawal comparaison rek après dañu koy dalawaat quoi non problème quoi. xam nga béréb moom mënuñ la fee tëb yëkkati rek nga jugee kootu ak mbetteel geeg ñoom seen yooyu te aussi ñi nga xam ñëpp fi lañ la xamee kon il faut ngay jéem a naxanteeg ñoom di naxanteeg ñoom ba nga fi mën a jugee ko wala ba ngay mën a am neneen noo mën a def waaye mënoo tëb rek ñu yëkkatee rek nga daal di fi jugee ko fii nag njaay mi doxatul bu baax te li ci ëlëb nit ñi sax mooy ñoom dañoo taxaw rek ni temb fii la ñuy amalee seen liggéey léeg-léeg nga faral wàcc am 5000 léeg-léeg nga am 7000 instant yi daal moom dépasse bi sax pour nga lijjanti ko problème la daal yaa waaw li ñuy jaay ay 200 la ñuy dàq ay 100 francs ñu leen di jëlee saa su nekk ci bërëb yi waaye ñoom ñuy des ne dañuy amal seen liggéey fii bëgg fi am li gën mbala ci beneen sit yaram jàppale ni tàggatuwaat nañu gaynde yi lépp nag ngir waajal seen match seen digg ak Madagascar euh, ñu soxal mondial Russie 2018 ñu bëgg nag bu arbitre bi ne pour souffler laata moo sori ñu daal di assuré kon euh, boobee match jël ca ndam la loola waral ñu taxawee ni Pape Fara ñu ngi teewee na ko. bi benn waxtu la toll gannaaw ba ñu dawee rekk tàngal seen yaram Aliou bi ñaari pàcc. ñu def nag jongante bu métti boo xam ne bëri na woon ay but soo xoolee seen xar kanam rek jour yi taxaw nañu témb ngir am qualification ci seen jongante bi. malgré euh, terrain bi euh, dox woon suñu situation en plus climat bi euh, tàngoon na trop donc métti woon na ko ñu def suñu jeu bi mais heureusement que match bi 2-2 lañ def maintenant instant bi ñëw nañ suñu suñu dëkk gannaaw suba dinañ def tout pour essayer gagner suñu suñu match bi. pour que le public mën a kontaan si ñun. Aujourd'hui on est chez nous et euh, avec la pression du public et avec le jeu qu'on produit depuis un certain temps avec la confiance euh, qui commence à nous animer petit à petit on, espère gagner ce match comme il faut avec la manière et euh, plaisir au public et surtout nous faire plaisir. waaye li nu mel ngir mu yomb faaw ñu xoolaat defence bi ñu bañ a jël bi fexe tamit ba teel dugal ngir libérer peuple bi. attaquant yi que ce soit attaquant yu défenseur yi wala milieu terrain ku ci mënti dugal nañ xam ne équipe bi équipe bi moo ñëw pour gagner match bi passé attaquant yi dugal nañ ñaari but manqué rafetlu te di leen gën a encourager xam nañ ni tamit euh, match bi di ñëw dinañ xaar lu bari ci attaquant yi. ñun aussi xam nañ loolu suñu bopp te dinañ def suñu kéem tolluwaay kattan pour euh, essayer teel a libérer euh, population daanaka jour yëpp nga xam ne Aliou Cissé convoqué na leen bokkoon nañ ci boobule tàggatu Kara Mbodj mi ñu waxoon ne dafa blessé entraîné na ak gaynde yi ñu wane nag confiance bu mu sëkk ci talaate bi seen diggante ak Madagascar ngir am qualification bi ci match de poule yi ci wàllu mondial Russie 2018. ni ko waxee kon match boobu suba lañu ñu ko jàpp jaraaf moom amal na match am diggam ak la woon euh, mu soxalit euh, championnat deuxième journée bi waaye ndam demu ca ndam dikku ca ku ca ne benn nga dugal ba waral ña leen ka leen di tàggat Alassane Dia euh, gis ni daal liggéey bi des na mu xamle it ni équipe am avance bi mu jotoon na am mënu ko loolu a waral égalisation bu USO ñu teewlu kàddu mu ci yëkkati ci micro Pafara ñi nga caméra Thierno Laurent Mendy je pense que bu ñu defoon tuuti gën a dal gën a tey gën a ànd ak xel match bi mën nañu ko gérer ba mu jeex ba jël euh, victoire bi mais dafa xoon am tuuti précipitation ci noonu laa ko mën a waxee voilà ci loo xam ne yi capacité gérer situation yi mel ni nga xam ne match bi dafa serré nga mëne euh, adversaire bi en réalité dangereux wul trop après yow nga fexe yow ba mu dangereux ci sa kaw ba am égalisation donc yooyu je pense que loolu laa ci lañ ci mën a jàngat mu nekkaat beneen loo xam ne lii encore il faut ñu waxtaan ci ak joueurs yi liggéey ci entraîneur bu ISO moom it euh, wax na Malick euh, Dafa euh, la mu gis moo di égalisation boobu lu ñu mérité la ndax ci seconde période bi ndem sax match bi yombul woon waaye taxawaay ba war am nañu ko ca yi kàddu la fi yëkkati. ndax match bi yombul woon ndax jaraaf dafa jóge ci défaite bu métti contre Linguère xamoon naa ni match bu métti lay am équipe bu mag la du perte ñaar yoon wala ñetti yoon. loolu xaar naa ko ci woon la preuve match bi commencement ko seetaan xam ne match bu métti la parce que ñaari équipe bi seen taxawaay amoon nañ taxawaay bu baax occasion yu bëriwul mais boo xoolee Jaraaf première incursion première fois bu mu dugg suñu surface de dugal bii si erreur défensive taxawaay problème taxawaay xale yi waaye boo xoolee bi ñu duggee vestiaire li nga xam ne moo ñu war ñun entraîneurs yi mooy taxawalaat équipe bi wax ak ñoom def quelques moo war bi ñu ñëwee deuxième mi-temps yéen ñëpp defe naa ne gis ngeen changement bi bu fekkee égaliser nañu aussi a ñu agsi ci euh, dossier bi gannaaw kàddu yi kon njiitu réew mi xamle daal ni dañu war a xoolaat secteur informel bi euh, daal di koy euh, defar ba mu gën a taxaw loolee ña ca àddu seen xam-xam màcc mbir mi gis nañu ni lu mën a nekk la waaye loolu ci kaw it yenn conditions yi marchand ambulant yi joxe nañu ci seen xalaat naka noonu maire yi ñu ngi jéem a xool nu ñu mën a def daal baag dalam ci ba ku ca ne gis sa bopp ci yëf yi dossier Aminata Mbare Sow Jafara Ba ñu ngi fii ci site de recasement marchand yi nga xam ne ñoo nekk ci avenue Ponty ci bërëb bi bile lu ëpp ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukki nit ñoo fiy liggéey ñoom ñëpp nag ñu nekk ay marchand tablier yoo xam ni dañoo am importance ci économie sénégalaise. secteur informel dafa bokk ci réew mi ba xool Touba Sandaga secteur informel la génne Ablaye di taxaw na fii daal ne lii ku doon informel ça ce n'est plus informel mais c'est formel kon ce qui veut dire que ñin. mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. su dee sax secteur informel tey doon na lu am importance ci biir Sénégal teewul ñi di marchand tablier di wéy di jànkoonte la ci jafe-jafe. jot na actuellement léegi ñu wàccee ci terrain bi waxtaan ak ñin seet ñin nan la ñu mën a toog ak ñoom seet li nga xamante ne mooy suñuy njariñ di njariñu réew mi ñu utiliser ko li nga xamante ni du suñuy njariñ ñu jël ko teg ko la pour ñu mu ñu formaliser ñi ci sama xalaat bu gàtt d'abord ñun dañoo war a stable ñu xam ne ñii fii la ñu nekk. boo leen di seeti nga seeti leen fee bu ma leen di fekk ma fekk leen fële mais tey ñu ne la fii ginnaaw suba beneen mairie ñëw ne la du fii fële la kooku pour nga formaliser ma man dafay xaw a doy waar ci man. fii ci rond point Liberté 6 ay coppite am na ginnaaw bu ñu fa amalee ay opération de déguerpissement mujjantal ga mairie bi ak ñu fay yëngatu daal di trouver ab solution. mairie dañuy doon sonal buñ lalee tey soo bu ñëwee laliñu mais à tout le temps rek ñu ngi fi parce que itam ñun amuñu lii parce que lépp looy def. mooy liggéey jaamu yàlla la lépp li ñuy def nii jaamu yàlla la moo tax xëy ñuy reyante pour toog fi liggéey fi nag bu ñu amee koo xamante ne wax dëgg yàlla mën nañoo dimbale pour ñu toog fii loolu rek lañ bëgg bëgg ñu leneen. Liberté 6 gis ngeen ni daaw dañ fa demoon yëkkati ña fa nekkoon war a aménager war fa def ay liggéey mais bi ñu waxtaanee suñu biir ñu ne en attendant que liggéey yooyu di démarrer am nañu benn partenaire bu accepté aménager ko metre leen ci condition yoo xam ne ay bâche am électricité am sécurité ñu d'accord ni balaa ñuy demaat liggéey bi nañ leen fa tegandi ñu mën a def seen commerce mais aussi ñu am lu ñu suturloo. su dee sax euh, trouvé nañu solution teewul marchand tablier yi di wéy di nekk ci ay jafe-jafe. comme ni ñuy def assi assise nationale de de l' éducation assise nationale des ambulants ñu dajale ñëpp xamal leen ne nag léegi da ngeen di yéen comme ab bi fi anama nekkee da ngeen di nekk ci ginnaaw anama. ANAMA nekk seen seen interlocuteur bi ñu ñëwee yéen ANAMA lay waxal ANAMA bu ko defee ANAMA moo ñuy représenté mais ANAMA itam dafay défendre suñuy intérêt. ñu jàpp ne tey jot na nguur bi jël ay matuwaay toog waxtaan ak ñoom su ko defee ñu xam ci yan anam lañ leen mën a organiser. dal ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw lu ñuul ba mel na ndobin ci xët mu l'observateur noo la journal bi xëyee ngir dellu siwaat ak ñun ca la xewoon ca Paris keroog àjjuma mu di ay samba booy defkati ñawteef maanaam mu sojee Sénégal dafay tisóoli li feeñ ca France Sénégal mi ngi koy bàyyi xel firnde li yéenekaay bi nañu moo di Jean Félix Pagano nga xam ne mooy ambassadeur France ci Sénégal jamono ji ma nga ca tig-tigal bu Podor ak ci Matam waaye Ndeye Fatou Seck bu l'Observateur ma ànd ca tournée ba xamal nañu ne waa jamono ji ak kaarangem dañu ko yokk bu baax a baax leneen loolu it am na ci l'Observateur xëy ñu ko leeralal mu di communication bu ñu intercepté ci diggante imam yi ñu jàpp fii ci Sénégal ak waa Boko Haram imam Aliou Ndaw bokk ci imam yi ñu jàpp yéenekaay bi l'Observateur nañu yi ba noppi tegal ñu ci ne Sénégal dafa war a gën a jaajuwaat lu waaye xam nag ca dellu ne Sénégal muccagul ci li xew ci diwaanu Paris li tax yéenekaay bi waxee noonu moo di waa Afrique ñoo leen xamal ne daal imam yi nga xam ne jàpp nañu leen ci réewum Sénégal li ñu leen jàppee moo di dafa waxtaanu téléphone woo xam ne soldat yi français ñoo ngi ko déggee ca Tchad lañ xam moo di imam yooyee ñu jàpp fii ci Sénégal dañuy jëflante ak waa Boko Haram nan la ñu koy éclater ak nan la ñuy exploser yooyee bomb Jean-Yves Le Drian mi ministre défense ca réew France journal bi nañu am na ku ko jege li mu wax waa Afrique moo di jamono ji terroriste yi Sénégal la ñu teg ay gët enquête xëy di lox li tax Sénégal war a gën a boole fàggu ak fagaro journal bi nañu la xewoon ca Paris ginnaaw ba mu amee waa Daesh dañoo génne benn communiqué na ñoom la la ñu ca teg nag moo di képp koo xamante ne ji yaa ngi jàppale France ba yooni France aw nga aw fa xamal ne da nga ko diggaale ak ñoom enquête nañu te nag gu ñu réeri ak Sénégal cereeku sëb la ñoo nga àndee ci àll ba cin li boolewu leen lépp loo gis ci France rek ni ngi ko séentu ci Sénégal le témoigne xëy ñu xamale Sénégal geetaru na ba dëgër blende na boppam jamono ji l'armée bi ak gendarme yeek ñii di waa police jekk nañu jug leen rek la xaar leneen loolu it journal bi xëy na ci dellu siwaat mu di la xewoon ca diwaanu Paris yéenekaay bi nañu bilan ba ma ngay gën di yokk léegi ñoo ngi naan téeméeri doomu aadama ak fanweer ak ñaar yoo xam ne ñoo ca faatu yéenekaay bi photo ak avion ngi guerre yi di sànni ay missile yéenekaay bi nañu waa France dañoo bombardé lenn ci ay position yu Daesh te loolee dañ koo tàmbali rek Le Quotidien nañu fi mu nekk nii ak ñoom France jamono ji mi ngi fayu te fayantowul démb dañoo yandoo bombardé capitale bu Daesh am na it ay nit yoo xam ne teg nañu leen loxo nee nañu dañoo jege loolu ñi nga xam ne ñoo di kamikaze yi defoon ñaawtee ci réewum Paris lii di populaire xëy dikk ñun nee na cooway bari rek waaye xuux mënu leen a dàq taxaw jonn defante ko ak gars yi xeex ba fa mu yam neex ñi nga xam ne ñoom ñoo indi fitnaaw foofee keroog àjjuma ca Paris yéenekaay bi xëy ñu leeralal ñooy ñan leneen loolu it populaire teg na ko ci moo di pexe mi ñu ngi ko nasee ci réewum Belgique foofee la ñu ko nasee pexe mi observateur tax nañu la woon foofee ndekete du ay doomi France rek ñoo ca faatu ci ñi ak fanweer ak ñaari doomi aadama yi ñenn ñi Portugal am na ca koo xamante ni ji jigéen la Italie la fekk baax am na ku dëkk Allemagne am na it ku dëkk Maroc libération ne ko it Sénégal jël na ca wàllam am na doomi Sénégal bu ca faatu Alima Ndiaye la tudd moom dafa demoon ci barab bi ñu naan belle équipe àndoon ak sëram ak frère doon fa feetu fa leen fekk feetal ko mu dee la tribune ne ko du moom rek rakkam bu jigéen bokk na ci ñi nga xamante ji faatu na ci moom mbir Abdoulaye sa kaaraange observateur tax nañu waaye moom Macky Sall nag na ko leer ni wéeruwul ci dara bil yéenekaay bi bu yaakaaree mobilisation ci jigéen yi APR ya ca banlieue bu Ndakaaru moom Macky Sall dóor na loxom ci ëkk yéenekaay bi nañu Marème Badiane moo fa woote woon am ndaje démb woo jigéen yi APR yi moom présidente départementale femme APR waaye dootu ko dolli ndax ndaje ma mu woote woon ci Guédiawaye démb bu weesoo Moustapha Cissé Lo ak Aminata daanaka kenn newu fa woon kenn ñu mujj gi ay séesi kese la doon waxal yéenekaay bi nañu ndaje ma wëyëng la defoon fiasco total ginnaaw nag bët bu rusul tocc woo na nit ñi fu mu jaar wax leen dara mu nekk fa di leen leeralal wax yi daaw ak yu daaw ji ak ay terroriste ca France ay simu ay plan Sénégal émergent ak njëgu location gi nga xam ne observateur nañu ba ñu ko wàññee kenn xamul kañ la yéen a bi dañu te nag ñoom jigéen ñooñee ñoo ne dañuy wër ñeent fukki département ak juróom yi nekk ci Sénégal ngir biral réalisation Macky Sall libération nañu li ñu def démb bu ñu ko dollee feneen fu ñu dem deru Macky Sall la ñu fay yàq ndax lancement euh, lii di activité jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar yi fag lajj tàmbalee foofee kon la tàmbalee ndax daal li xamante ne ji mooy ngeen woote ba kenn wuyu leen la fa nekkoon ci nit matul ñetti nit seen nit ñi tey la ñuy jommeeti ubbi leen l'observateur ay mbootaayu góor jigéen ci réew mi yéen a kaay bi nañu Aboubacry Mbodj njiit la RADDHO moo ko xam ne keroog samedi ca Ndar xam le ne ne am na juróom-ñeenti association yu góor jigéen yu ñu reconnaître ci Sénégal. nga xam ko Mamadou Mouhamed ya jaajëfal leen yéen ñu àndaloon benn waxtu ba léegi ci xibaaru digg bëccëg bi rédaction bi incha allah dana dellu si i xibaar.